nga leen di wax yow sa vrai fans du Saal. waaw te wax ji jeex na. wax ji jeex na suñu page tournée. et puis bon nga mu gay. xëy na ne maa ngi ñëw. am na sax yàlla daal sax yàlla mais. loolu si ma la ko am teel ñu bàyyi di wax sa batawaay bi. ñu wax sama batawaay bi yow nee na.

sort et en partant ou pas Comme tu veux. En partant, comme tu veux. bon yàlla jàmm yàgg yàlla mel ni gudd fan ak wér alal di barkeel xale yu màgg am njëriñ am diine ne ko dem naa my God. Assane Faye euh, delloo ko njukkal euh, si euh, dikk bi fi dikk <coughs> tey sunu sunu sunu gan bi mu